kanu Sénégal ci tiis bu ñu yàlla natto depuis quelques jours mbokk yi lii laa gisoon ma waxoon ko te maa ngi am metit lool parce que lu ma doon ñaan yàlla yàlla musal ko askanu Sénégal mel ni moom la ñuy tey nii wax ji nu ko tubaab yi di waxee l'heure est grave te le génie du peuple sénégalais daanaka yàgg nañ dund ay situation yu metti wante yàlla yàggal nañu suturaal ba ñu génn ci te dama ci am yaakaar incha allah que bii tamit dinañ ci génn incha allah moo tax mbokk yi duma sori ci wax ji kàddu yi lu ko waral bugguma commenter lu tubaab bi wooye parodie de justice parce que askanu Sénégal amul kenn ku ci am xel ñaar ci justice su Sénégal tey lu muy exécuter ci ay commande politique ak tamit lii di responsabilité justice du Sénégal tey ci mettit cu askanu Sénégal di dund ci seen yenn décision yi parce que jàppewuma ko comme condamnation lu ma ko jàppee mooy disqualification ak élimination luñ ci namm ñoom mooy bëgg a organiser sélection te bañu a organiser élection te may biralaat encore kàddu yi di ko jëmale ci président de la république président Macky Sall président maa ngi lay ñaan ci yar ak teggin nga dellu siwaat sa xel parce que président Sénégal jiwu la lii suñu mbokk nga suñu président nga loolu la yàlla dogal loo ñuy teg suñ na ko tegoon tey doo nekk président du Sénégal seetaatal sa taxawaay président wax naa la ko ba ñu yàlla may ñu toog amoo fi noon dégg naa sa ay kàddu ci dialogue bi bu ngay ubbi dialogue bi am na sax ay sénégalais yu xaw ñaawlu peut le ton wala le mots utilisés président man pour que Sénégal am jàmm man nangu naa raam ñaan la yow parce que jàmm bi ngi sa parce que lu fi yee tey fitna Sénégal xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede président ne nga waxu troisième mandat nañ la ko ñaan ci njëkk dama ne su nekkee loolu lañu nar a def pour que Sénégal am jàmm man Barthélémy Diaz en tant que maire de Dakar maa ngi leen ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi président nga teg ko ci suuf en tant que acteur politique président maa ngi lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat bi nga teg ko ci suuf président de la république en tant que rakk ci yow maa ngi lay ñaan ci njëkk waxu troisième mandat ñu teg ko ci suuf ma yokk ci tamit ma ñaan la ko ci njëkk ak ci yarak ak teggin parce que lu ñuy dund tey nii jaru ko te lii yépp lu ko waral mën nañ juum wante lu ko ragal euh, lu ko waral mooy lu ñu xalaat ci waxu troisième mandat te tey mu am ci askan bi ñu ci bëri ñu jàpp ñu ni que yow da éliminer ñépp pour mën a toogaat fii te président yow xam nga ñun xam nañ te yàlla mën na seede wax nga sa gémmiñ suñu nopp ba ngay def référendum te xam nga lu constitution wax te président violence bu ñuy gis tey yépp lenn rek ko waral te mën naa juum je pense que waxu troisième mandat bi soo ci nangoon yàbbi ci daanaka xol mën nañ féexaat moo tax président may sàkku ci yow nga génn wax ak sa askan wax leen lu ñu mën a dégg parce que président nooteel bu ñuy wootee Sénégal jaay doolee bu ñuy wootee Sénégal mënatul continuer kon nag président xoolaatal sa taxawaay parce que ñu nekk ci mbedd yi mu neex la mu naqari la yaay seen président te bañ lay fal dañ la faloon ngir yaakaar musuñu la fal ndax lu ñuy gis tey nii di ko dund tey nii loolu xel musu ko xalaat te loolu dara jaru ko ci àdduna fii yàlla rekk fi nekk keneen nekku fi am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur amoo fi noon wax naa la ko di bérilaat wax ci président dañ la bëgg dimbali ndax yow nga mën a dimbali Sénégal ci ban anam dimbali la pour xool naka lañ lay wutal yoon nga génn fii par la grande porte parce que mooy sa cër président président sélection bu ngeen nam ma def Sénégal kenn mënu ko fi nangu parce que constitution lu mu leen may ci sañ-sañ mooy ngeen nangu organiser élection sélection bi dafa yàgg ñuy toog di muñ di muñ tey nag yàlla wane na boppam yàlla moo de moo décidé que sélection jeex na may sàkku ci yow tamit nga nangu loolu président moo tax président je crois que du am benn sujet tabou mën na la comme amul benn sujet tabou nañu waxtaanee lépp parce que ci waxtaan la lépp xet may sàkku tamit ci askanu Sénégal ñu bàyyi xel ci lu ñuy wax parce que ba Sénégal doone Sénégal ba tey mbokk yi yàgg nañ fippu yàgg nañ wane suñu naqar wante kenn musu fi am ndam kenn musul egg au pouvoir par une violence absolue te wax naa leen ko nee naa leen lu fi xewoon mars 2021 yan laay waxal askan bi bëgg ngeen bàyyi ci xel parce que askanu Sénégal da ngeen am xel macha allah bàyyi leen ci xel lu fi jotoon xew ci mars 2021 mu bettoon ñépp wolof njaay nag ne lu la bett mën la waxoon naa leen bàyyi leen ci xel depuis 48 heures su ma jumalee am nañu egsi fi Dakar mais profité ci occasion bi en tant que maire de à la Grande Muette la bienvenue chez eux la bienvenue dans leur capitale les inviter à continuer à rester cette armée du peuple sénégalais mais je voulais vous rassurer vous cette Grande Muette que Dieu vous garde et trouver un dénouement heureux à cette situation nous sommes des acteurs politiques nous sommes un dañuy sàkku ci yéen nekk que vous puissiez nous accompagner mais à vous le peuple sénégalais bàyyi leen xel ci lu mu leen wax si on ne s'entend pas que personne vienne dire que gisee ko woon noonu wala dégg ko woon noonu kon nag maa ngi sàkku tamit ci tous les acteurs politiques de tous bords y compris suma mbokk yu nekk biir opposition ñu cirque ak ñoom suñu Yewwi Askan Wi ak suñu F24 dama leen di ñaan ci yar ak teggin xoolaat leen seen taxawaay Vous êtes de responsables et vous avez une responsabilité à assumer dans ce pays te xam ngeen ko du ngeen ay xaleel te bu leen fooye seen xel munu leen ne da ngeen bëgg a jiite réew mi réew mi toll fu mu toll tey nii ngeen du ngeen waxtaan loolu munul nekk su ma bat ci kaw nag su ngeen ko defulee ëllëg lu fi mun munti am bu leen taxawaat ci kanamu askanu Sénégal ngeen ne da ngeen bëgg a jiite Sénégal déet bugg leen jiite Sénégal dama ne lu kilifa diine yépp sant xam ngeen ko au passage ñu ngi nuyu tous les chefs religieux de ce pays toutes religions confondues ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar di leen di jox seen wàccuwaay te may biiralaat wax ci nee naa kilifa diine yi wàccoo nañu ak askanu Sénégal fu ñu naroon wax wax nañ fa ñu naroon waxal wax nañ ak ñoom lu ci des mooy que les acteurs fassent preuve de tenue et de retenue mbokk yi am na ñu bëri ñu jàpp ni que président dina def troisième mandat man mën naa juum wante man gëm naa ni que troisième mandat du am Sénégal mais nañ ko teg ci yoon nañu waxtaan te bàyyi nekk fii di jéem a xoqalante suñu biir wala tubaab di wooye sa faire peur jouer à sa faire peur loolu amul solo amul benn solo parce que xam nañ kañ la ñuy commencer mais xamuñu kañ lay jeex naka lay jeexee. kon nag mbokk yi lu tax may wax lu may wax nii dañu nar a am élection présidentielle février 2024 gis naa ci ouverture dialogue bi parce que nekkuma fa woon dama doon xaar ñu jox ma les termes de référence lan la ñuy waxtaane parce que man lu ma tax a jóg dem naa ne ataaya déet man naan ataaya taxuma jóg lu ma tax a jóg mooy dem waxtaane Sénégal ak lan ñu mën a def ba génn Sénégal ci guutu bi mu nekk nii am nañu bokk ci beneen boor bi ñoo xam nag lu leen tax a jóg ñoom ñu ne daal dañu xalaat que mandat président dañ ko nar a proroger ñi ne un an ñi ne deux ans ñun d' accord ñu si tey duñ si mës a d' accord mbokk yi bu leen jox gaañ yi excuse wala prétexte pour ñëw na leen dëkk bi dafa instable mënuñu fi organiser élection bu leen ko def xel mooy xeex xol du xeex am na dëkk bu sorewul Sénégal mënuma tudd turam président toog na fa dix ans musu fa am élection ndax la ñu ne dafa amoon une rébellion dans le nord de ce pays bu leen jox gaañi yi parce que gaañ yi ñu ngi dem te bu leen nangu gaay di dem di ñu yóbbaale parce que réew mi ala kuli al ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy pencoo duñ ko pàccoo lu ñu bokk dañ koy waxtaanee duñ ko yàq-yàqet kon nag mbokk yi damay bañ a guddal mais fu may daanee tamit mooy aux forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di masawu tamit ñu ngi leen di jaale seen mbokk yi fi jóge te metti ci ñëpp wante yéen tamit ñuy sàkku ci yéen euh, yenn yi su mën a ñàkk wax dëgg yàlla ngeen def seen kéem kattan mu ñàkk parce que yéen yaa leen choisir def maintien de l'ordre maintien de mu mënul ànd ak bouclier humain dañuy waxante dëgg mënu leen dem jëli xare bu ndaw mais da ngeen di ko utiliser comme bouclier humain loolu rafetul ci image du Sénégal ndaw ñu tamit ñi manifester vous exercez certes un droit mais ba leen xel ci dara ñu nekk ci mbedd bi ñoo xam ay policiers lañu ñoo xam ay gendarmes lañu du ñu ay chinois ay sénégalais lañu nous sommes des voisins nous som des parents dara jaru fi a yi nañ ko rafetal. parce que lu jeex jeex na te lii jeex na buñ ko yàq nañ ci ànd ak xel nañ ci ànd ak dal nañ ci ànd nag ak fermeté parce que su suñu demee ba egsi fi tey nii c'est parce que wolof njaay nee lu ëpp tuuru moo tax président Macky Sall fu may daanalee mooy bàyyil xel ci loolu la Sénégal ji te xam nga fu ñu lay xaaree te wax naa la ko comme ne nga nañ la ko ñaan ci njekk man mii Barthélémy Dias ñaan naa la ko ñetti yoon ci njëkk en tant que maire de Dakar en tant qu'acteur politique en tant que jeune frère mbokk yi loolu moo nekkoon kàddu yi di ñaan yàlla di suñu borom yàlla na yàlla yokkal sutura Sénégal yàlla na yàlla aar Sénégal